da ngay def taati neen ak yaramu neen diwu ba weex tàll jékki-jékki ni cëpp ci tool ba rek ni ko haa kese hmm. la esondé xana ka kolé ci ko taw nga ne lan esondé ah bo bëggé nga ñox ko tamit ci biir hmm day la ci wacc ak ah, ñu kolé ko fi eh. nanu aw kon babu yandi mo la joxon nen bi pour lan ay eh, bokku sama len de eh am na fena sam nen nen nen bi uma joxon pour aw kon man la bëggoon rek déggulul ma wax la nenu baabu yande bokkul ak eh, sama nen nen bi toj ñaari yoon baabu yande neni koppin la indi dukkure rek nekkul ci dëkk bi waaye li may yëg dukkure ci moom la ne waaye déedéet am na ñeent yeneen góor yu mu ne nag nag laa ko gis bosom laa préféré lii dafa ñaaw ci ab déggin dafa ñaaw ci gisin man nag rusuma ci dara jigéen mooy kenn àddina waaye léegi nag maa soo bëgg a soo bëgg waaw soo bëgg a leen ma naax waaw ma sol tuub bu yam fi ak benn ak benn serment ak benn simit ak benn veste ak benn dala

d'ailleurs ba ma waxee sama éleveur xar maa ngi ci chaleur ñoom ak seen i auditeurs waaye ñun ak suñuy tailleur 500 épisodes ay saa neex yaa ngi locataires yi ay lii loo as xaaral ma xaaral ma jot a tëdd sama ne comme luye luye naa ba joxe sama caution. ci biir kër gi lay xëy mi moom kër gi amul choix.